waxtaan bi am na si mhm. sama mbir la ku ci d'accord loolu sa affaire la bu subaa naa ko bu assemblée nationale les députés vont décider point fa ak ñoom mhm. mais parce que dem na ba xam ne tey ji ñoom front yi ñu ko doon ubbiloo ak xeex yi ñu koy ubbiloo mais way ñaaw rek la koy may mais ñoom ñoo ko dugal si li mu dugg nii mhm. ñoom ñooñ doon wax noonu ñoo ko dugal ci li mu dugg nii faagaagal ko politiquement day disparaître politiquement warul exister dafa def nii dafa def yi état dafa def nii dafa def na li amuñu lenn lu ko doon conseil lu dul doole jaay ko doole ñoom ñëpp nag ñoo am benn phrase bu ñu teg seen tuñ yi force restera à loi ku bu ñu jàppee ni tëj bu ñu jàppee ni dóor ñu ne non force dafa loi bi day day day mhm. ñoo doole. la loi c'est la loi. la loi c'est la loi loolu la ñu doon gëmloo léegi moom mu yor yetam di dóore di dóore di dóor mu dem ba xam ne tey ji mi ngi bëggeen mais yet bi du solution bi. Mhm. léegi lan mooy solution bi. Mhm. du du négocier mu génn si dem. si tey jii génn bi muy génn lan moo gën a rafet léegi. léegi lu ñu bëggoon. c'est-à-dire wax naa ma Macky Sall boo ma tudd génn ci ci ci bi sax mais finalement. yàlla di mën a ko jaar na ci bunt bi non jaar na ci bunt bi effectivement ko. sax ni ñu ko euh, génne ci seen xol yi finalement di ñu commencé sax di. il il s'est ak loo bëgg wax ak loo bëgg a wax c'est vrai c'est une tâche. Mhm. boo xamante duñ ko fàtte mais il s'est rattrapé. parce dugg na ci histoire. oui il mhm. s'est rattrapé. Mhm. def na fi lu kenn deful dàq élection présidentielle mais alhamdulilah mais loolu ñoom ñi tey dañ ko ko bëggoon a xañ Macky Sall xamoon na ne amaru Ba du gagné Macky Sall xamoon na ne Amadou Ba du gagné élection yi nga foog ne ñàkk ko xam. moo tax mu mu tekk tekkaaral bi koy xam mooy bii. peut-être boobu dama na ba jege si conseil constitutionnel la de Bassirou merci ci ko xam ci la xam ne Amadou Ba du jàll. mooy tax ñu ne dafa ñu indi changement bi merci yow comprendre nga. Mhm. bi jomee rëccee. Mhm. Amadou Ba rëcc ci xam ne Amadou Ba du bokk. parce que ñoom seen way lan la woon. Mhm. Jomaay du bokk Sonko du bokk ku jege Sonko du bokk mhm. léegi nag ñu ne dañuy jouer ci troisième pion bi mhm. maanaam ki Sonko di indi après ñu ne kii ci système bi la bokk wala ki muy indi après ñu ne kii du Sonko du Jomaay mhm. donc kon kii euh, vraiment mun Amadou mën na am chance ci kawam mais bu Jomaay jàllee dafa changer calcul yëpp moom ñoom ñëpp ñu am problème ndogumal ñoom li ñu jàppoon mooy que ni Sonko euh, euh, comme ni ñu ko doon jaayee ni ñu ko doon jaayee Macky c'est un pouvoiriste moom lu mu bëgg gi te su demul rek du ja du tànn kenn moo tax tànn jomaay bi mu nekk dafa nekk surprise mm-hmm. léegi nag waa xam ne tey ji jomaay mi nekk surprise mm-hmm. mais saa waay nga am say sondage xool Sénégal di observé yaay njiitu réew mm-hmm. mais bu ñu la nee saa mi day jàll tamit ci kaso ba mais léegi nooy def donc ñaaray am. si bàyyi ko ci kaso ba mu gañe ma gàcce ray ma wala ma génnee ko sama yoon si yéen ñi nga xam ne yéen a bokk APR sama yoon nekku si parce que xam naa ne de toute façon da ngeen di ñàkk. Amadou mënu woon dépasser li mu am ni c'est-à-dire bu ñu demoon. Mhm. dem dem ba mu dem deuxième tour tey ji dañ koy gañewaat te buñ gañewaatee deuxième te day gën a ñaaw rek. loolu moo tax ma jàpp ne euh, Macky Sall sama boppam la gënal du bañ naa la rek la def ak waa APR. Mm-hmm, mm-hmm. sama boppam la gënal du bañ naa la parce que xeex bi ko dugaloon ci li ñu ko dugaloon ba mu xeex ba ba mu mm-hmm. euh, nga li mu li mu jur tey te xeex boobu tey jii moo ñu yóbbee amuñu Ousmane Sonko comme président de la République. ñëpp ñëpp ñëpp affaire sentiment bu dafa des seen xol ñëpp dafa des ñu wax ko ak ñu bañ koo wax. bu ñu sañoon Ousmane Sonko bu ñu sañoon Ousmane Sonko mooy toog. ñoom ñëpp ñu nekk Pastef fa ñu ne bi bu ñu sañoon Ousmane Sonko mooy toog mais mbiri yàlla la tamit yàlla moo ne andi atum 2024 jomaay mii laa bind si joom ne moom mooy toog ci ko amaana Sonko bu toogoon tamit euh, peut du sotti wala lu ni mel du gën ci moom sax parce que yàlla nag moom du juum li tax mu ñu jox ñu jomaay mm. am na lu tax te yàlla du juum bi tax mu jox ñu jomaay tey Sonko ci ginnaaw mhm. am na lu tax te loolu du yëfu Macky Sall sax man dama bu dee gëm yàlla dëgg ngay waxee mhm. da naan du yëfu Macky Sall parce yàlla moo bindoon en 2024 bu mu rangalee président yi 2024 Bassirou Diomaye yaay toog loolu Macky mënu si dara mhm. même bu doon Macky tey ji tamit Sonko amaana mën na am sax du bokk wala Diomaye yàlla propulsé ko si beneen dynamique boo xamante ne parce que nit ki gis nga boo gëmee da ngay noppaloo ko Mahfouz. Mm-hmm. Mm-hmm. boo gëmee doo soxor doo nangu. même ci euh, yi génn nii sax démb da ngay gis ne Bassirou lay jiital. Euh, topp ci ginnaawam. mais sénégalais dañ lay bëgg sax mu leer na la ci li mu nekk da nga ko koy yéene. da nga ko yéene da nga ko def ba pare yéene ko. loolu la xam nga nit ki dina jox nit te du ko yéene. Mm-hmm. mais jox la yéene la ñàkk pexe. mais moom ñàkk pexe amul. ñàkk pexe amul de. parce que te bu ko puusoon seen booy passé bi jox nañ ko bopp jox bopp goo xamante ne. bu génnoon bi ne ne waxtaan ni nii dañuy dàq élection yi gars yi dañuy yuuxu ñetti fan dañuy yuuxu ñett mais bu génnee mm-hmm. ñetti fan wala mu toog noppi rek du bind. Mm-hmm. day toog noppi rek bàyyi Macky di déroulé. ñu xool naka la def def nii def seen i manigance kërëb kërëb affaire yi jaxasoo quelques jours. Mm-hmm. après parce que loolu leen di wax ah, dañ naan bu amul tey 19 moo waral seen F25 boobu noonu mais ñooñu est-ce que Moustapha nga euh, jugé leen ci élection bi du nekk loo xam ne si nii. Euh, da ngeen di nga ci jóg leen di tooñ waaw c'est vrai mën naa parce que euh, maa ngi koy xalaat ci suba dualité bi déjà. ci diggante Macky mm. Sall ak Ousmane Sonko yàgg na. ñoom en tout cas ñoom ñoo subir li nga xamante ni moom moo di conséquences yi mais buñ ci sukkandikoo rek ne pesé wuñu dara. Euh, mën nañu juum alors que tey contexte bi moom moo tax tey moom mooy euh, justifier seen ay résultats muy zéro zéro zéro yu bëri. mais mais contexte bi moo def ne tamit tekki pesé wu ñu dara contexte bi def léegi ñoom li ñu waroon am yëpp waa contexte waa waa ñii dañ koo jël. contexte bi moo ko def si ñoom. moo tax may la est-ce que jugé leen ci tamit ne tekkuñu dara politique. mais mais ci contexte bi ci contexte bi lañ leen parce que contexte bi élection la. Mhm. te un homme politique bu demee élection ci élection nga ko mën a atte c'est vrai élection yu particulière la d'accord naa ak yow de élection yu particulière la. Mhm. mais situation bi mu ñëwee tey jii par exemple boo cité benn Pape Djibril Fall chute bi mu def. Mhm. nga cité benn Thierno Alassane Sall. Mm-hmm. nga cité keneen ak keneen ak keneen ñoo xamante ne parrainage ba ñu sax amuñu lu lu lu lu lu ñu toll. bulletin nul sax ñu sax ñu leen ëpp ñoom. mais loolu mën nga wax na nga ne mais ñi tiens politiquement ñoo ëpp lii. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne amaana bëgg nañ leen mais dañoo bëgg def vote utile. loolu moo tax ma ne côté dama la fay rejoindre. parce que am na ñoo xam ne amaana votel nañ Jomaay. mais dañoo bëgg def vote te ki su ma ko voté le xam naa ne du gagné mm-hmm. loolu mooy particularité élection présidentielle mm-hmm. ak sénégalais ni ñuy voté mooy le vote fameux vote utile bi nga xam ne dañ koy def xam nga fay di gis koo xam ne dafay taxaw ne man damay voté ni parce dama ko gëm dama koy dooleel pour bii ñëw mu am doole mais fii dama naan man su ma jógee sama kër boo naree voté dañ la koy voté nga ne Daouda Ndiaye Daouda yaa ngi yàq sa carte yaa ngi yàq sa carte votel ko diw kooku de kooku nu mu dee dee dina dem deuxième tour. Mm-hmm. loolu lañ lay wax moo tax Khalifa Sall am surprise bu mag a mag a mag a mag mag ci élection yi. Mm-hmm. parce que ma ko déggee eh, émission bi mu doon def ak Moustapha Diop bu Walf ma dégg ko mu naan non damay dem deuxième tour. ak lu mu métti métti moom deuxième tour Khalifa Sall non deuxième tour damay dem xam nga élection du ful di nit ñi di gis ni man dama xam élection di wax ak Moustapha ne ko non deuxième tour dina am dama damay dem dañoo xam élection élection du fule man dama wër dëkk bi dama def ni di expliquer yëpp maa naan ay waay waay waay yàlla mottali yéene yeggul de. ah yéen a yeggul. parce que période bi ko bëggee woon yegg mottali baaxul. Mm. gis nga politique dafa laaj lecture toujours ma wax ko lecture politique dafa am solo ci homme politique. Mm, mm, fii malheureusement sunu homme politique yi xam nga la mooy xam tax du ñu am lecture. ego maanaam mana. Mm-hmm. ak mba ngandu ngandulu mm-hmm. ñoom ñëpp dajale leen xamoon nañu opposition bi Pastef moo fi nekk. Mm-hmm. ku jege yëpp taxawaleen ñoom maam boo ñu doon génn ak Aliou xamoon nañu duñ def poids ak candidat wu Bokk Yaakaar. Mm-hmm. loolu dafa am. léegi nag li am mooy. nga bokk pour def benn score bu honorable suba ñu compté la ci acteur politique yi boo defee am ay zéro suba dañ naan tekki woo dara kon zéro nga puusal na mais nag malheureusement ay zéro la am. léegi perte euh, perte lay doon dañuy perte. xam nga kan doon gagné. Hmm. ku ci génnoon par exemple peut score bi Aliou Mamadou Dia am. Hmm. ñoom ñooñu nga xam ne du pur quoi pur parti la mais tey benn benn benn benn par exemple Déthié Fall bu génnoon am 3 pour cent association yu ni waaw dëcc mi force la suba. Mhm. mais ñoom ñëpp dañoo maasoo. bokkandoo zéro yi. waaw mais léegi dañ naa leen yéen ñëpp léegi ba ci idi. waaw ndeysaan. moo ubbi zéro yi sax. moo ubbi yi. moom moo gën a jege un nag. moom moo tax may la mu ubbi yi. moom moo gën a jege un. moo <laughs> moom mooy <laughs> moom mooy frais kii bi. wéef ah, bi waaw. <laughs> non frais transfert orange money. orange money orange money la waaw. zéro kii xalifa mooy frais transfert wéef. un pour cent un pour cent junni bu nekk. fukki dërëm waaw mille francs bu nekk. cent cent franc junni bu ne cent junni bu ne junni bu ne fukki dërëm junni bu ne fukki dërëm. ñaari junni bu nekk cent franc. <laughs> <laughs> Moustapha Sénégalais sérieux wul quoi <laughs> sérieux sérieux la yàlla jëm dem élection ba ñëw nga naan kan ay frais transfert wii ak frais transfert orange money Idy na quoi non na ko ah. hmm? moo tax ñàkk ci xaalisam et ci énergie non moom yow mi màggatu politicien xam na xam ne yàgg la dem élection man dama jàpp ne mbettel mbettel bi gën a am ci kan ci xalifa Sall waaw Khalifa parce que Khalifa dafa tolloon benn moment ay député am ko mais moom nag moom nag naa bokk rek la wax de waaw mais na waaw waaw gis nga mu ngi nii de naa bokk rek ah bokk na. Ah, euh, bokk na li mu bëggoon am na ko. gars yi ñu ngi ko doon natt sax ay 4 pour cent ndeke xalifa yeggul foofu. sax xalifa ngi ci 1 pour cent. Hmm. c'est li am Sénégal nii moo tax le monde avait raison de dire séisme séisme politique moo fi am quoi non véritable séisme politique wax quoi war na tax ñu xoolaat nag euh, ñu suñu xoolaat euh, am ci waat ci wàllu politique ak ni ñuy demee ci élection. Mm-hmm. parce que tamit plus après daanaka ñaari parti kese ñoom nga ci dégg wala ñaari coalition ñëpp yoo xam ne si dañ koy coûter euh, euh, euh, contribuable bi sénégalais mais loolu war nañ ci taxaw ñu xoolaat naka la ñuy organiser élection yi soit ñu def mu am deux pôles wala ñu xool doolu ci ne parrainage bi def na épreuve am échoué échec la parrainage bi aussi baaxul parce que def na ñu laaj la quarante quatre mille bu gën a néew quarante quatre mille mm-hmm. parrain nga fexe ba am ko mais mënuloo am sax. 15000 ak ñi ko am sax ak ñi ko am. ko am ak ñi ko amul. waaw mënuloo am sax 15000. ci ñi mu téye ci wet gi mu téye ci wer gi jàll la ñu waru woon a jàll. waaw ci benn fichier de 7 millions. Mhm. mënoo ci am sax 15000 wala boo ci amee 15000 ci lay am 15000 personnes mais loolu dañ la war a éliminer ne yow dootoo bokk ci élection. wala moom ay sanction après. Ah, waaw moom ay sanction après. boo am mooy mooy mooy bi c'est vrai mooy caution bi quoi. parce que boo diisalee caution bi mën na doon solution mais hmm. tamit euh, gars yi xaalis teewu hmm. donc loolu moom je pense que nguur gi di ñëw dina ci réfléchir bu baax a baax. Hmm. et politique xam seen bopp. non xam sa bopp Mahfouz si jaamu yàlla la bokk. yow rek ne candidat yow rek ne yi di sonal a dem présidentielle 2029. dañ ci commencé di liggéey préparé ko préparé terrain bi. vraiment xam ci ñu jëm. teg seen planning. mais yow bàyyi ba léegi kan moo am chance Bougane. oui am na chance Bougane am na chance bu demoon. waaw waaw waaw dana bokk ci groupe bële mais position bi dafa raté l'histoire non dafa raté l'histoire non côté côté zéro yi kay laay waxee. ni bu demoon moom mënul créer surprise. day am zéro si zéro lay bokk waaw bu demoon si zéro lay bokk. mais raté na l'histoire nag. loolu moom. parce que man jàpp naa ne bu bugaan bu fekkente ne li mu doon wax dëgg la ci moom ne ko moom anti système la comme ni ko ñoom Ousmane Sonko di woote. Mhm. bi mu waree def choix dafa waroon a génn jël courage am jàppale. mais comme Abdourahmane ñaar lañ doon gis sax moom Abdourahmane Diouf lañ daan gis. anti système la ñu woote ñoom. waaw donc xam nañ fu an ñan ñooy woote anti système ci candidat yi. waaw dañuy dem ànd ak ñoom ànd ak ñoom mu jeex. mais ne pas choisir boo toogee yow nga ne bu Macky Sall di xeexal ni dama wut yet ma dóor Macky ba noppi. Mm-hmm. dem laajte lu ngeen jotee. waaw Macky Sall am ku mu yebal kooku di bëre yow nga ne bu leen tànn ki saa di yow say militant am na ñu amoon droit dem voter ji Amadou Ba. si xam parce que mënoo mënoo gàntal Sonko comme ñëw na seet si la eh, ne fu mm-hmm. da nga daan dégg ñu ne voté la ñëpp sauf Kambale. Mm-hmm. sama militant bu ma déggal. tànnal ci ñeneen ñi sauf camp bi. Mm-hmm. waaye libéré naa samay militant voté leen ku leen neex. di xaar deuxième tour di xaar deuxième tour. parce que ba deuxième tour ba. xëy na deuxième tour am suba. passation de service bi mardi la. Mm-hmm. Euh, fële ci Diamniadio euh, euh, mm-hmm. à partir de onze suñ fa jógee ñëw palais. ñu jox pouvoir bi le président le nouveau président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mu doxal ñu doxal. ñuy xaar lu bari ci ñoom tamit. Mhm. Euh, institution yi fi nekk nee nañ woon dañ koy di euh, dissoudre lu ci bëree bëri. Mhm. wàllum dund ji ñu ngi leen ciy xaar. déjà euh, mardi dina nekk journée boo xam ne si nii tey. bu historique bu historique lay nekk. Mhm. voilà. dina nekk journée bu historique parce que euh, su bis boobu lay waat. maa ngi dégg am ko doon wax naan non est-ce que du waat si alxuraan ak yooyu mën leen déet lépp na actuellement changé guñu constitution bi dafa dafay lépp daf ko fi fekk. loolu lépp après proposition yi muy def la mën na dafay amendement ci biir constitution bi ñu ne président musulman bu ñëwati. léegi booy waat Coran ngay teg nga waat comme euh, États-Unis ñoom bu ñu waat Bible la ñuy teg waat nga ne président kii bu ñëw. bu dee chrétien nga ngay di sa bible teg waat loolu je pense que du yàq dara ci ci mbir mi eh, dina taaral wala ne gëm-gëm gi am na fu mu yegg léegi ci réew mi mais loolu yëg seeguñ fa am na ñu wax ne non bu demee waat na bañ a yëkkati loo xam ne indi yu baale kaamil ma déet fu ñu ko bind euh, république lañ nekk tamit mm. lépp lu ñu def tamit dañ koy bind ñu def ko bu waatee après mu doon sérieux waaw république laïque surtout mu doon mais nag euh, mm-hmm. la waaw parce que bu fekkente ne française ñoom dañ ne liberté de se libérer de la religion la. Mm. se libérer de la religion. sànni ko sànni waaw nañ ko sànni bokkul <laughs> religion bokkul. Mm. alors nag ñu dañ ne liberté de religion lañ wax waa États-Unis voilà ku nekk ku nekk lu neex gëmal liberté ku la neex lu neex gëmal mooy waral tey ji bu la neexee nga am nii bul voilé wu ñoom côté boobu la ñuy que a exclure mm. warul bokk ñeneen liberté de religion moo tax man lay laïcité boobu laa préféré mm. euh, ñoom est-ce que xam nga ne seen dollar yi boo demee da am na këyit bi nii da nga ciy fekk in God we trust yàlla la ñu gëm gëm-gëm mu nga foofu. Mm-hmm. donc pour man euh, ñoom fois à chaque fois dafay dafay dafay revenir. Mm-hmm. Euh, gëm-gëm dafay ñëw et loolu lu am solo la. ndoom ñoom ndeem ñoom ñoo ko mën nag ñun suñu société war nañ ko mën. Mm-hmm. ñun ñi nga xamante ne mën naa ne à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay ay ay croyants lañu. donc war nañu mën a tamit xool nañu def jox diine gi tuuti li nga xamante ne jom li mu moom sax pas tuuti. mais malheureusement fii boo commencé di poser débat nga dégg ñu naan nooy di ay bëgg yóbbu débat fenn man dama ne ki nga xamante ne ki gëm dëgg dëgg dëgg dëgg di ko jëfee di ko doxee kooku c'est un modèle da ngay doon citoyen exemplaire. Mhm. parce que diine boo ci jël liñ lay wax mooy bul tooñ bul sàcc bul fen mhm. joxal sa bopp yàlla. tere yi daal rek benn la de. benn la donc léegi loolu ku gëm dëgg rek boo amee ku gëm dëgg rek way gëm boo ko amee day doxal. Mhm. moo gën nga am ñoo xamante ni gëmuñu tus lu leen neex def lu leen wax boo xam ne politique àddina àddina la yem yem yemul àllaaxira du ñu am éthique du ñu am déontologie. du ñu am éthique amuñu déontologie mm-hmm. tus topp leen. maintenant léegi bu ñu demee ci cérémonie boobu ñu def euh, foofu tamit euh, président Macky Sall ñi ngi dégg ne am na taxawaay bu am solo bi mu fay amal mm-hmm. euh, invité ko gars yi ñu ñëw mu defal ko cérémonie bu. waaw 15 chefs d' état ak invité surprise bu muy wax ne.